rumeur la woon wala information lu mu ci mën di doon mariage bi ñu fi doon ruumandaat ci diggante Youssou Ndour ak feccikat bi di Mbathio Ndiaye xawoon na yëngal réseaux sociaux yi moo xam muy Facebook Twitter WhatsApp wala sax Instagram bu yenn ci internet yi jàppee woon ni sax nag xalaat mbir mu mel noonu yawaate la ñu ci des moom dañoo demoon sax ba doon défendre ki nga xamante ni moo di Mbathio Ndiaye kenn ci internet yi demoon ba bind sax ni lan moo tax ba Mbathio Ndiaye mënul war a nekk soxna si Youssou Ndour kan mooy Youssou Ndour xanaa Mbathio Ndiaye du jigéen rek mu mel na ni internaute boobu dafa fàtte ni Mbathio Ndiaye jotoon na am ay jaar-jaar yoo xamante ni rafetul ci carrière am yu ci mel ni photo nii yi nga xamante ni publié woon nañ ko waaye nag coow li li muy bëri bëri ki nga xamante ni moo di nday mbilli gi Mbathio Ndiaye yéeyut benn yoon yàbbi ci boobu les rumeurs moom daal dafa toogoon ci ruqam rek ni muq waaye mu mel ni rek roi di mbalax ñàkkut woon ay défenseur ku ci mel ni Charles Faye di journaliste télévision Futur Média waaye ku ci mel ni tamit Kouthia mi nga xamante ni animateur la humoriste la ca télévision Futur Média bu Youssou Ndour ñaar ñëpp mu di journaliste bi ak humoriste bi génnoon nañ teg mbaacoo place am bu baax a baax waaye rek mu mel ni jamono ji rumeur faux mariage boobu indil na ay gàllankoor ki nga xamante ni moo di kat bi di Mbathio Ndiaye ndax boobaak léegi kenn gisatu ko mu feeñ ci télévision bii di TFM waaye tamit invité tuñ ko ci plateau wala sax événement yi nga xamante ni groupe Futurs Médias moo koy organisé mu mel ni nag Pape Cheikh Diallo Bisou Ndiaye ak équipe yeewu leen bi yëpp jot ay ordre ci Ndiaga Ndour Birane Ndour wala sax Bouba mi nga xamante ni moo nekk directeur programme télévision Futurs Médias lu mu ci mën di doon nag ki fi wayoon photographe photo ma moom dafa mel ni Youssou nduur daka boycotté loolu nag li koy firndeel moo di grand bal bi nga xamante ni amoon na ci CICES njiital super étoile sax Diaw Ketchup la invité woon à la place de Mbathio Ndiaye waaye nag mu mel nii lu dul yàlla neen la ndax heureusement la ñuy wax ki nga xamante ni moo di Pape Diouf te mu nekk jamono ji mi numéro un bu Prince Art fexe na ba invité woon ki nga xamante ni moo di Mbathio Ndiaye ci concertu fin d'année bi nga xamante ni amoon na ca place de